mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu këru liggéeyukaay gi di C3S compagnie Serigne Seck Sénégal mu ñëwaat ak yéen ci jongante mbindum alxuraan bi muy amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di dëppoog ñetteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind xët ci alxuraan bind sa tur ak sa sant sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci barabu C3S bi la gën a jege wala nga yóbbu ko ci fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi am na fa li bees ci ren bi mooy jigéen ñi dañu leen di beral seen concours bopp ak jongante bi ñuy amal ci région de Matam ngir doore fa jongante bi ñu namm amal ci gox yi at yi di ñëw ñett ñi jiitu ci concours national bi danañu am ay neexal yu ñu leen jagleel premier bi million millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions bu dee ci jigéen ñi première bi 1 million 500 deuxième bi 1 million troisième bi 500 000 francs bu dee concours bay am ci région de Matam premier bi 500 000 francs deuxième bi 300 000 francs troisième bi 200 000 francs terewul nag ku bokk ci tànn bu njëkk ba di nga am ay neexal yu ñu la jagleel bi dina door 1er janvier 2020 war a jeex 31 janvier 2020 ku ci bëgg yeneen di leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu بنعمة ربك بمجنون fas yéene dellusi si fàttalante ci lenn ci diine di ponk bi jëm ci ñiy woote discours boo xam ni daa jëm ci suñ boroom nan lañ ko war a defee kuy wax wax joo xam ni dañ caa jublu woote ci diine wala yee nit ñi ci diine ci wan melokaan nga ko war a defee suñ boroom daf ñuy wax ci suuratul baqara a'uuzu billahi mina shaytaani rajim ud'u ila sabili bi bilxikmati wa maw'izati alxasana wa jaadilhum billati hiya axsan inna rabbaka huwa aalamu bi man dalla an sabilihi huwa aalamu bil muhtadin suñu boroom daf ñuy wax ni booy woote lu jëm ci yoonu suñu boroom nanga ko jaar ci xikma xikma mooy sagesse sagesse ci lislaam buñ koy firi bokk na ca la ngay wax nga xam ko dara jiituwul ci sagesse xam li ngay wax ginnaaw bi nga ko xamee ba noppit na nga doon nit ku maandu ci li ngay wax bañ ci am ak parparloo loolu it lenn jiituwu ko ci sagesse ba ca toppit mooy mbir mu ne nga teg ko palaasam wax ju ne nga wax ko fa nga ko war a waxe loolu it dees na ci dégge sagesse maanaam xikma dees na ci dégge it nga jekku li ngay def xam ko kese doyut waaye jekku ko mooy xam ni nga koy waxee xam ñi nga koy waxal xam ni nga ko war a waxee ak ñoom loolu mooy jekku kon suñu boroom loolu lañu jàngal ne bala ñoo wax ci diine walla waaraate ci diine nañu xam loolu ba noppi ku ne xam na ni suñ borom wax na ci sootul baqara wa qulu linnaasi xusna booy wax ak nit ñi nanga wax lu rafet ak loo mën a digle ak loo mën a tere na nga fexe ba waxin wa rafet nit ñi dinañ naw nit ci waxam ju rafet dangay ngay dégg ñu ne diwkat naw nañ ko ndax mosuñoo dégg muy wax lu ñaaw kon mbir mu nit di faj ci diine wala di ko wax ci diine it na fexe ba waxin wa rafet waxin wu rafet weesuwul li ngay wax nga wodd ko weesuwul it li ngay wax nga bañ cee jarxa machaaril axarina maanaam nga bañ laal santiment nit ñi ak leen di metti ndax ki ngay waxal bu la jéppee dootu la déglu kon loolu lu mat a sàmm la ci kiy wax ci diine kon bu ñu bëggee waxtaane loolu liñ ci gën a yitteel mooy fii ci sunum réew moo ñu soxal problématique bi nga xam ne sii dafa am ci discours religieux bi maanaam ñiy wax ci diine am nañ benn gàllankoor bopp léeg-léeg dina tax ba message bi ñuy bëgg a jàllale bi jàll loola xëy na mënees na ko fiire ñàkk xekkame gi ñu doon wax sànq mën naa dellu it ci yeneen i mbir waaye war na ci kiy wax ci diine mu xam ni li ëpp solo ci kiy wax mooy muy beesal discours bi muy def jamono day évoluer àdduna di dox nit ñi di gën a yeewu façon xam-xam yu bees di am doon du yell ci kiy wax mu taxaw ci fi mu taxaw rek wala ci mawdoo bi mu nekk rek bañ koo jóge dana baax muy yeesal di wax ak nit ñi fiñ tollool di wax ak nit ñi ci li ñuy dund di wax ak nit ñi ci jumtukaay yi ñuy jëfandikoo loola dina yombal xitaabu diin yi dana dimbale it ñiy dégg duñu toqi ci li ngay dégg ci li ñuy wax bi topp mooy dana jaadu yi ci kiy wax muy wax nit ñi loo xam ne sii dafa dëppoo réalité yi ñuy dund boo leen di misaal nga leen di misaal ci li ñuy tollool ci li ñu nekk ci réalité yi ñuy dund boo leen di joxe exemple nga jox leen exemple ci ñu ñu xam ci ñu leen gën a jege loolu yi dana leen dimbale ba li ngay wax mën naa jàll beneen bi bu dee ci discours religieux kii ñiy wax ci diine li ñu war a njëkk a gën a xantewoo bokk na ci ñu xam ni diine jëflante la islaam muamalaat la ak ibaadaat jëflante mooy suñu diggante suñu biir ñu war di exante ci ñun nan lañuy ñuy war a jëflante suñu biir ndax islaam ay jikko la bu ci jikko yi génnee dara desu ci mboolem lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis lenn génnu ci comportement ab jullit nu mu war a comporté woo diggam ak nit ñi diggam ak ay dëkkandoom diggam ak liggéeyam liggéeyam ak ñamiy liggéeyal génnut loola kon mu mel ni yenn bi sallallahu alayhi dañoo jàngal li nit ñi gën a soxla mooy nga leen di wax ñuy gis ci seen bopp ci li ñuy def quotidiennement nga leen ciy orienté loola bokk na ci lii tax booy def benn discours religieux li ngay wax jàll bu dee fii ci suñum réew nag am nañ ci ay jafe-jafe ndaxte bu ñu xaajee discours religieux bi am fii ci senegal benn bi day dellu ci média yi ñoom ñoo ko yore mooy ñiy wax ci média yi di wax ci diine walla di wax ci turu diine nekk ci rajo wala ci ab di wax beneen xaaj bi mooy ñi nga xam ni si suñ borom dafa dogal ñu nekk ay imaam wala di bi gën a sensible mooy bi nga xam ne sii dafa jaar ci média muy télévision wala rajo te boobu problème biñ ci am mooy seetlu nañ ni fii ci suñu réew mbooleem rajo yi wala télé yi dañuy fonk yeneen desk yi boo demee ci ab rajo wala ci ab télé day am desk sport am desk culture am desk politique yooyu yëpp dañuy jël koo xam ne sii xam-xamam màcc na ca loola xam nañ ni jàng na am na ay diplôme ca loola ñu jox ko mu jiite desk booba di xam ñañ war a invité ñu wax ca wàll woowa ku wax ci wàll woowi lu dëppoowul ak li ñu war a wax lañ ca war a yure dana am abilité habilité censuré ko ndax xam-xamam jëm na ca loola bu ñu egsee ci desk religieux nag ñu am problème néewaana ab rajo wala ab télé boo xam ni da ka ñuy jiital ca desk religieux ba ku am abilité la pour mën a xam ki war a wax ci diine ak ki warta wax ci diine te loolu problème la bu fekkee ni ki jiite desk bi amul ahaliya mën a àtte ni kii li muy wax lu waxu la wala du lu waxu kon waru faa nekk waru faa jiitate kon lu fa neex waay wax loolu bokk ci lii réeral nit ñi lu baree baree baree bari ndaxte boo xam amut xam-xam ci mbir munoo xam ka ca war a wax ak ka ca wax moo tax lañ cay dégge mooy dañuy dégg gis ci tele yi léeg-léeg wala ci rajo yi ñoo xam ni dañuy wax ci diine te seen àlluwa walla seen tolluwaay eggut ci ñu war a wax ci li ñuy wax donte am na lu ñu xam am na lu ñu tollool am na lu mën a wax waaye léeg dañ koy jéggi di dugg ci leneen loolu kon problème la ci discours religieux ci Sénégal te day dellu ci média bi dellu ci internet ci journal en ligne yi dellu ci presque écrit bi dellu ci lépp ki yor ab journal di bind mën naa dem interviewer koo xam ne si xamul dara ci diine koo ko wax ca diine mu bind ko loola boo demee ci réew yi diine yi joxe lislaam wala réew xam-xam yi kenn xalaatu fu lu mel noonu kon loolu gàllankoor la ci message bi war a egg ci nit ñi du mën a egg ci ñoom ndax fi ñu koy taataanee foofu la amee jafe-jafe ci wàllu woowu loolu lu mat bàyyi xel la ñi suñ boroom dogal xëy na ñu am ñu leen di wooye boroom xam-xam dañ am ay moyen ñoom ñoo war a mën a xeex loola ci yori média ak ubbi ay média yoo xam ne sii ñoom dinañ am ëhëliya mën a xam ña fa war a wax ci diine ak ña fa wërta wax ci diine parce que bu fekkee promoteur bu nekk rek yaa ubbi sa rajo wala sa télé teg fa ka la neex ka nga dégg muy wax ca rajo sàngam nga woo ko mu fay wax wala ka nga mës a romb ci mbedd bi muy wax wala ka nga mës gis ci télé bi muy wax nga woo ko muy wax ci diine loolu danger la te nit ñi fa la ñuy taataanee lañ fa dégge la ñuy jëfee kon loolu responsabilité borom xam yi la ñu wax ci loolu artu ko dangay seetlu lu bari ci mel mel noonu léeg-léeg ñiy wax ci rajo yi ak ci tele yi ci diine mbir day xew maanaam ci misaal euh, tabaski xew jot ñu war a wax nit ñi ci diine kan la tabaski war ak kum warut ñu bàyyi ko fa di wax xar mi ni mu war a mel tëb sartu wujub yi dem ci sartu sixa yi loolu ci ëpp loolu di indil problème société bi benn problème boo xam ne si xamuñu fu ñu koy réglé bu jotee lañ ñu war a wax mooy kan la war ak kan la warut ba mu leer seen bopp ba pare amut jenn jëf ci diine joo xam ne sartu sixa ya mooy jiitu sartu wujub yi amut donc liñ ñu déggee mooy liy priorité mooy nga wax kan la war ba noppi ba ñooñu catégorie boobu xam seen bopp ba noppi doo ko déglu sartu sixa yi nan lañ koy defee lu koy lu koy yàq ak lu koy baaxal bu ñu egsee ci koor muurum koor da ngay gis koo xam ne si day weeru koor wépp daa leb bu mu egsee ci muurum koor mu génne ko di ko joxe mboolem weeru koor wi assuré wu ci lu mu doon dundee nga xam ne faqiir la ku ñàkk la kuñ war a jox la ñu naan la mudd nangam ngay joxe ñaari kilo ceeb ngay joxe ak nangam ngay joxe nga koy wër doo ko am léeg-léeg sax lépp fekk la ca loolu kon problématique la ci discours religieux bi faw ñu koy tàqale faw nit ñi di dimbale nit ñi ci loolu yombalal leen diine xam ni ci ñi ko xam jafewut waaye nag bu fekkee ni ñi xamut ñooy wax wala ñi xam waxuñu société bi ci problème boobu lay dëkk loolu lu ñuy jànkonteel la ci suñu société bi bi ci des mooy ñi nga xam ne si discours religieux bi nga xam ne si ci jumaa lañ ko war a déggee walla ci jàkk nga xam ne mënta am d'abord lu dul xamuñu ci lislaam lan mooy rôlu jàkka ak lan mooy rôlu jumaa ci islaam ku ne xam na ni suñu réew mi ni mu tëddee nga xam ni ku am sa pàkk tabax sa jàkka ku tabax sa jàkka wala sa jumaa yaa fay jiite wala ku la neex a fay jiite yaa fay wax wala ku la neex ñoom kese mën naa indi problème ci discours ba ñu fay def kon jàkka yi tamit am na problème mu discours religieux ndaxte dañu dimbali nit ñi ci priorité yi priorité yi mooy wax nit ñi leen di boole priorité yi mooy wax ni jàkkakat barabu xamukaay la weesoo jaamu yàlla ni ñu tabaxee fii prévoir fi centre culturel prévoir fi foo xam ne ñoo xam ne dañuy waxtaan prévoir fi ñoo xam ne si dañuy ifta prévoir fi ñoo xam ne sii loo soxla ci sa mbirum diine boo ñëwee ñu jàngal la ko loolu mooy rôlu jàkk ak juma ci lislaam waaye wërta nekk par parloo wërta nekk dem maa fi ëpp sañ-sañ maay wax ndax lislaam doxewut noonu ci misaal loolu moo indi tey bu julli jotee ak suñ borom fi mu teg julli ak julli ni mu lëkkaloo ak nodd ak julli ni mu amee waxtu wiñ ko war a def ci tey àjjuma ci misaal nga xam ne waxtu wi ñuy julli kenn wut a def dara nodd ni mu fooree ci lislaam nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam day wax ne bu ñuy nodd nañu noppi waaye dañuy gis ci suñu société jàkka ju ne ak heure noddam jumaa ju ne ak heure julleem mel ni julli moom suñu borom waxul ne inna salaata kaanat ala muminina kitaaban mawquta xel nanguwut foo déggee nodd rek noppi Sénégal ci ni ñuy noddee ndax kee day nodd ba daaneel kee déglu ko ba mu eggal ki ci des doog a tàmbali yow mi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sant ne bu ñuy nodd nanga nga noppi xanaa kon da ngay noppi waxtu wépp xel nangu wutit nga jóge centre ville ñu baare fa di julli nga egsi Mermoz ñu baare ko di julli nga egsi Ouest Foire fekk ñuy julli nga egg parcelle fekk ñuy julli ci benn gox bi loolu lañ cay déggee mooy kon am na luñ desee comprendre ci ne ci julli niñ ko taw xiitee ndaxte l'islam dafa ànd ak économie julli dafa am heure dañ koy def jóge ca dem liggéey wala ñu defi leneen misaal moomu rek day wane ne kon loolu ñuy def xeluwut te l'islam amu ci lenn loo xam ne si ant xel borom mi naan la bu julli jotee na nga julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam di la wax ni bu ñu noddee na nga noppi kon loola lañ cey déggee mooy lu ñu war a defandoo la pour gagner du temps ak ngir respecter it waxi suñu borom ji jàpp naa ni loolu lu ñu war a di fàttali la ci suñu jàkka yi ak suñu jumaa yi li ñu ak indi loolu nag mooy xëy na parparloo akuk féete te loolu la lislaam gën a bañ jullit ñi dañoo war a doon benn dañoo war a bokk li ñuy def dañ ko war a tàmbaleendoo dañ ko war a jeexalandoo loolu mooy doole lislaam par parloo day ñéewal doole lislaam di favoriser sect day néewal doole lislaam yi nga xam ne si suñ borom da koo digle nañuy fexe ba ci discours religieux bi ñuy sensibiliser nit ñi ci ñu koy defandoo loolu dina yokk doole société bi dina yokk doole l'islam kon loolu lu mat a bàyyi xel na lañ cay déggee mooy lislaam nit ñi ñoo koy dund ñu dudd ñu doog a tudd état islamique wala ñu doog a tudd umma islamiya soxlawul président bi wala gouvernement bi wala tribunaux ya ñooy nañ fa àtteewu lislaam bu ko nit ñi dundee rek ñu dund lislaam ñu nekk ay muslimiina moo ëpp solo ku ne dund ko sa kër ku ne dundloo ko sa njaboot bu ñu ko defee rek ñu nekk dawla islamiya te ci loolu lañu war a sensibiliser nit ñi bala ñoo xalaat ci ay réforme yu mel noonu donte soxla nañ ko waaye li jiitu mooy nit ñi moom nañ ko dund seen nañ ko xam ba noppi dund ko ci seen kër ak seen njaboot buñ ko defee suñ borom mën nañoo suturaal ci lu baree bare feneen fi nga xam ne dees na fa taataane discours religieux mooy ci ndaje diine yi fii ci Sénégal bu weesoo média bi weesu jàkka yi fi ñuy déggee discours boo xam ne si ci diine lay wax mooy ci ndaje diine yi màggal yi walla gàmm yi walla cant yi wala xew-xew yi mel noonu foofit discours ba fay jóge jëm ci nit ñi war naa nekk lu leen di jariñ war naa nekk lu leen di boole war naa nekk lu leen di yee ci ni ñu war a doxalee seen àdduna ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ashhadu an laa kon ñu eggale ci tomb ñetteel bi nga xam ni mooy discours bi nga xam ni dañ koy dégg lu ci ëpp ci munaasabaat diine yi nga xam ne ñu bari fa la taataane fa la dégge te boobu moo gën a sensible ndax lu ci ëpp ci ak ngëm lay aju lu ñu fa dégg rek lu ñuy gëm lay doon lañ ca wara a sàmmoonteel mooy yee nit ñi ci liñ nekk mooy lan te buñ ko seetee lu ci ëpp ci tasawuf lay wax ak nit ñi waaye dañuy bàyyi léeg-léeg wax nit ñi li ñu nekk mooy lan ba noppi maanaam bu dee ci tasawuf ñu bañ ñu fàtte leen wax ni lan mooy hëdëf bi lan mooy objectif bi lan mooy principe bi ba pare lu ci ëpp dañuy dégg ne dañuy gis ne dañuy dem ak ñoom ci détails yi di leen wax ni nit ki ci ba bii la war a jaar egg ci maqaama bii bu fa jógee egg ci xaal bi egg fële te fekk tëpp nga la nga war a leeral nit ki lii mu nekk principe yi lan la ba noppi ndax nit ki lim nekk bu ko xamut du xam nu mu koy jàppe nit ñi ñàkk xam principe yi moo indi par parloo waaye ku ne xam na ni ku xam principe bi tasawuf doo ci parparloo ak kenn doo ci xëccoo ak kenn doo ci ëppalante ak kenn koo gis mu ne ca da nga ko xam ku ca nékkut danga ko xam kon discours bi waroon naa exsanté wu ci loolu ci prince bi ba noppi bala ñoo wax ci détails yi jàpp naa ne bu nit ñi xamee principe yi dootuñu tàqale bay na suufi yii na bu nit ñi xamee principe yi ku nekk sa bopp dana la doy walif sa moroom kon loolu tamit problématique la bu ñuy gis léeg-léeg ci discours religieux yi ci cérémonie yi bokk na ci it dimbali nit ñi ci bañ a parparloo ni ñu ko waxee woon sànq l'islam bëggul par parloo lislaam bëggul dàq yi yëfi nit wala xeeb yëfi nit teg ko ci ak par parparloo ket tasawuf du dara dul sell jëm suñu borom jariñ nit ñi amal njariñ nit ñi raxas sa xol ba mu set principe yooyu buñ ci yaree nit ñi duñ am tom loola mën na koo gisee neneen wala mu jàppe ko neneen bokk na it ci problématique bi ci am léeg-léeg da nga ciy gis koo xam ne day wax lam ca jublu mooy wax luy yëngal nit ñi wala wax lu tax nit ñi naan kii moo bari xam-xam dañ koy seetlu lu baree bare ci discours religieux yi am ci cérémonie yi te loola du discours religieux bi adéquat bi nga xam ne si moom la nit ñi di xaar kii wax pour lu ñu def ci poosam du wax nit ñi lu leen naqari du leen wax dëgg du leen wax lim leen war a wax kiy waxit it ngir ñu jàpp dafa am xam-xam di ci sàkku ut daraja mën naa wax loo xam ne si moom lay wane waaye du wane diine te nit ki buy wax ci diine lislaam ko war a ñor dëgg moo ko war a ñor wane diine ci melokaan wa gën a rafet moo ko war a ñor bu génnee foofu rek boppam lay wone loolu it gàllankoor la ndax xëy na koom gi ci dugg ak jàpp ne nit ñi boo leen waxee lu leen neex dañ la fonk wala ñu teg la fenn xëy na loola moo ci dugal ñu baree baree bari waaye loola dafa wuuteeg discours religieux bi war a am kon loolu lu si war a xam la bokk na ci li ñu war a xëntewoo mooy bu ñuy yar nit ñi ci diine ñu xam loo leen ni nit ki bokk na ci li koy dimbale ci mu nekk jullit bu wér du taxarur ci ibaada kese mais mu taxarur iqtisaadiyan aussi ñu xam ni nit ki liggéey dafa bokk ci jaamu yàlla nit ki mënta dund diineem te amul autosuffisant ci boppam nit ki mënta dund diineem fii ak mi ngi wékku ci ñeneen jafe-jafe boobu moo ñu indil moomatuñ suñu bopp ci dara lu ñu réseaux sociaux yi indil loolu la ñuy xam lu ñu forcé loolu la ñuy gis mooy ñun mel na ni existé wuñu te loolu la ko indi mooy xëy na ñàkk liggéey ci wàll woowa te diine mënta dem te loolu dominer woo ko ndax kon sinon loo defar leneen mën na koo yàq kon li koy yàq ngay dogale ba noppi loolu ngay jàngal nit ñi ne loolu mooy diine ndax àdduna bi foofu la toll. gis ngeen mashru Cheikh al Khadim nga xam ne bokkoon na ci nit ñi nañ am autosuffisant ci seen bopp nit ñi nañ nekk ay gor bu leen dara tënk. bu leen kenn tënk nit ñi nañ amal seen bopp manal seen bopp loolu ci ay principe am la bokkoon di sampi daara di samp ay tool di seexal ay nit di fa yóbbu di leen liggéeyloo ngir ñu manal seen bopp néewul kenn dem la nga liggéey ngir jox ma ndax xam na ne nit ñi bu ñu mënalee seen bopp ci la ñuy seen diine di mën a ñoŋ ci la seen ngor di mën a ñoŋ loolu it faw ñu koy fàttali nit ñi ne nit ki boo bëggee dund diine faw nga liggéey nangoo liggéey ngir ñoŋal sab der ngir ñoŋal sa am-am loolu it lu mat a bàyyi xel la ci rawatina ci cérémonie religieuse yi nga xam ne si ñu baree bari lañ fay dégg lu ñuy jàpp la wala lu ñuy gëm la. waaye lu leen fa wax dañuy jàpp ne loolu mooy li war a nekk mu des nag nit ki kon kan la war a déglu ak kan la war a topp dina bokk ci liy gàllankoor discours religieux mooy li ngay wax nit ñi wuuteeg li ngay jëf loolu dina indi blocage sa digganteeg nit ñi ak ñi lay dégg ndaxte kii wax ci diine buñ ko gisee ci yu soobental wala ñu gis ko ci ak ñàkk a ñoŋu mbooleem lu mu defoon ci nit ñi bu doon fukki ati wala ñaari fukki ati mën naa dañ ci benn seconde dañ naan ak cam kii de lim ñu doon wax lépp ndekete nangam te kon de comme bu ñu jàppee ne da leen di nax dañuy jàpp ne kon leen doon wax lépp ay nax la loolu lu mat a bàyyi xel la. ci kiy wax ci diine lu mat a bàyyi xel la sàmm googu ak jub mooy tax li ngay wax nit ñi ci diine mu mën a transmettre ñëw ci ñoom war nañoo xool problème bi fan la nekk bañ dalee waaraate bañ dalee wax ci diine ba tey influence bi des na kon problème am na nañ xool fan la nekkee ci ñiy déglu la wala ci ñiy wax la loolu fekk xamuñu ko dañuy am jafe-jafe kiy wax ci diine it c'est pas forcément day changer nit ñëpp wala am na mécanisme yu ko mën a may mu soppi nit ñëpp ñu baax loolu it na ko xam suñ borom yi ni mbindee àdduna ci scénario bi mu ko bind faw mu am ñu mel neneen la shaa rabbuka la jal naas ummatan waxida wala yazaaluuna muxtalifina illa man raxima rabbika wa lazalika xalaqahum axiru huud suñu borom day wax ni bu ko neexoon nit ñëpp nekk lenn waaye divergence boobu am loolu mooy challenge bi bokk na ci li tax mu bind àdduna kon loolu faw faaw ñu nangu ko ne faaw neen ñenn ñi mel nenn li kii waaraate it wala di wax ci diine it faw mu am ubbeekub dënn boobu am ubbeekub xol boobu ngir li muy wax mën a egg jàpp mu xam ne du moom mooy force nit ñi ci ak njub wala bu nee ñañ baax tey faw ñu baax loolu lu mu war a xam la moo tax bu ñu dellusee ci waxi Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu mi ciy wax ni man talaba alwusula liljalili falyatasim bi sunnati rasuli mbir mi daal mooy ku bëgg a yegg ci suñu borom na nga jàpp sunna taqoo sunna jëf jëf joo xam ni si méngoo naag ndigal yent bi sallallahu alayhi wa sallam mu teg ca bi an yulaazima mutian la yamin fi zahirin wa batinin an sabil na ngay taqoo it koo xam ne si jaamukatu yàlla bu jéngut la ci li nëbb ak ci li feeñ kon lañ cee déggee mooy nit ki booy topp wala booy déglu da déglu koo xam ne si gis nga ci moom ak ragal yàlla bu la ca daraja yóbbaale bu la ca baat bu neex yóbbaale ba ngay déglu koo xam ne sii gisoo ni jaar na ca yoon wa loolu mooy li ñuy dénk suñu bopp di ko dénk képp koo xam ne sii dangay ngay taataan lu baax wala di taataan ab discours ngir jariñu ci mu ne nit ki loolu muy def nag yaquuduhu na ilmu wala ibaada na nekk loo xam ne sii xam-xam moo koy wommat ak jaamu yàlla moo nit ki lépp lu muy def na ko teg ci xam-xam xam-xam nag dara jiituwu ca jàng la nga war a jàng li nga war a xam ci ay principe nga xam ko géeju ci xam-xam nag leneen la walla spécialisé wu ci xam-xam loolu du cërub ñëpp waaye ab jullit moom la ka war mooy li mënta ñàkk ci moom ci ay farataam na ko xam dem xami fu mu ko mën a xamee waru ko wékk rek ci déglu ci ay conférence wala déglu ci ay rajo am na ku ñu daan jàngal ko daan wax ni da gis koo xam ne day topp ab yi di ko déglu am bandam yépp lu man ñaari fukki at mu ko déglu nga xam ne ñaari fukki at yooyu bu ca jàngi woon daanaka rek dana xaw a xam la kooku xam loolu kan lañ cey déggee mooy jullit bi dafa war a jàng dafa war a xam war a xàmmee mu ne it kii ñuy topp war naa yar nit ñi ci bàyyi topp aada aada mooy li fi fekkoon rek lu ne ñu jàpp ne baax na loolu doyut nit ki war nay topp koo xam ne ci na képp la koy jëmale kon li ñuy wax génnul sagesse bi nga xam ni war nañ koo am ci discours religieux bi ñu am war nañoo diagnostiquer xool li ñuy def ñiy wax ci diine li ñuy def impact bi mu am influence bi mu am war a xool it manque d'influence bi ci am lan moo ko waral loolu lañuy jàngat war koo xool bu ñuy wax problématique mooy loolu bu ñuy wax solution yi ci tomb bu ci nekk lañ ca wax mooy bu njëkk bi ñi nga xam ne si suñ borom dogal na ñu man dara nekk ay jullit yu wér dañoo war a téyel seen bopp discours boobu di jaar ci média yi téyel ko seen bopp ngir mën koo saytu ndax boo ko deful ci loxo yi ñeneen lay dem te ñooña lañ bëgg lañ cay def loolu kon jàpp nañ ne solution la ci bu ñaareel bi bi jëm ci discours bi am ci jàkka yi ak jumaa ji lañ ca jàpp ne mooy solution mooy nit ñi am ubbeekub dënn ak yaatu